ndax ki nga xam ne moo di Maimouna Faye na dafa daal di invité woon moom ki na xam ne moo di Maimouna Faye moom ki nag yóbbu na yëf si daal di yoon ni ki nga xam ne moo di gumma la su ko jégalwul rek donc daal yóbbu fu nga xam ne daal doone benn yi itam bu mu daal di sës ki nga xam ne moo di Maimouna Faye nag di daal di dawloo dawloo ki nga xam nekk mu di gumma la neen du daal di baalu benn yoon moom itam day daal di fayu dawloo rek muy mënul fay doon dawloo si boobu di émission di invité de MNF ba léegi rek si wàllu xibaar lu doy waar benn couturier nag moo bëgg daal développé ay activité am si wàllu wunu mel nag waral mu daal di gis benn charlatan moom nag waa ji mu daal di daal di jël li nga xam nekk moo di sperme bi daal di koy defar li nga xam nekk moo di ay téere ak ay musulaay leneen si wàllu actualité itam ak li nga xam nekk moo di agresseur bi ñu jàppoon fan xam ne

Antenne. Vito Cocktail, une explosion de saveurs dans une même et seule bouteille Free yep, yëpp ñu jëmbatee Sénégal si anam yu sell naturel buy bi nag day wàññi il baax si yaram tayit yi oh, oh dina yokk seen kattan boole si rek ñi naturel nag Vito soow accident pour fête bu monti doon te baax lool si yaxu gune ak mag lépp nag si emballage civilisé tour wóor ak jus Vito da ngeen am choix te ñu ko fii ci Sénégal si anam yu naturel te sel disponible partout au Sénégal Vito jus fabriqué par Groupe Cefas à Dakar à la cité cœur Damel à côté de la mosquée téléphone 77 241 06 06 Vito jus le jus fait maison